ginnaaw ba gox bi dañ fi nekkoon ñëpp xam réseau bi ci ni mu meloon ak fañ ko dëkkaloon ñun ñi nga xamante ni ñooy ndaw nekk ci dëkk bi dem waxtaan ak kilifa gi di sëñ Muntaxa Mbàkke mu teg ñi ci aw yoon. boobu ba léegi nag yoon bam ñu tegoon ci lañ ne mooy def nañu carrément ñun ñii suñu kër yi di ngeen fi gis ñoo xamante ni dañuy def naka su dul noonu mais ñi nga xam ne ñoo fi jub ñooy taqatoo am fulla jële fa ñi nga xamante ni nekkee fa am njub. léegi nag ñu am ci événement yi nga xamante ni dëkk bi daf ci jëm muy lii di tabaski tabaski ak màggal mun nañ ne daanaka bés doxul seen diggante fi mu toll nii doy na waar te dafa nekk moment boo xamante ni Touba day nekk ville bu mouvementée bu ville boo xamante ni dugg gi ak génn gi day bëri ci période boobu maanaam defkatu ñaawteef yi dañ ciy profité ci dugg gee génn googu di def naka sudul noonu kon mu laaj ay préparation pour waajal lu mel noonu ñun nag bu ñu naan préparation ci wàllu sécurité la ñuy wax sécurité bu ñu ko waxee ñëpp xam nañu sécurité police moo ci jiitu ndax police ku ne xam na ni day liggéey ci li nga xamante ni mooy intervention ak li nga xamante ni mooy prévention intervention bu ñu koy wax ay moyens ñoo koy def qu'on se dise la vérité ñu waxante dëgg te yàlla tax police bi ñun xam nañ ci ñoom jàmbaar ndax laata ñuy dugg ci association bi di am li ñuy doxee nii xamuñu woon liggéeyu police ni mu waree franchement ñu ko waxee te yàlla tax mais bañ dugalanteeg ñoom xam nañ njariñ ji nga xamante ni ñoom amal nañ ko population bi donc ñu wax ko te dee c'est pas pour rien Touba nekk deuxième ville du Sénégal ville bi nga xamante ni ginnaaw Ndakaaru moo gën a bëri ay nit moo gën a bëri ay mouvement moo gën a bëri ay mbir ci ci Sénégal maanaam nag c'est pas pour rien Touba am ñetti police léegi nag ñetti police yooyu Touba nan lay amee ñetti police ñetti police la Touba am ñetti police yëpp benn oto la ñu am muy ginu guy mind moo ko am ñi ngi wax léegi naan police liggéeyam intervention la ak prévention intervention bu ñu ko waxee mooy dara day xew fenn ñu woo la buñ la wooyee oto la fa war a mën a yóbbu te booy dem xamoo looy fekk kon da ngay soxla ay moyens yoo xamante ni da nga ko fay yóbbu pour boo demee loo fa fekk mun a jàmmaarloog moom. waa am nañ ay éléments éléments yi ay garde lañ ñooy nekk ci tali bi pour circulation bi fexe di jaar ni mu waree. oto yi bañ di am fii embouteillage wala dara en même temps ñoom ñooy veillé ci ñi nga xamante ne ñooy dugg ak di génn ci réseau bi di xam kenn ku ci nekk li la tax a dugg ci réseau bi ak li la fi tax a génn moo tax nag population ñun ay civil lañ civil du régler moromu civil am dem nañ def porte porte gis nañ waa Safinatu Amaan gis nañ police gis nañ gendarmerie gis nañ commissaire de police yëpp ak commandant de police yi waxtaan ak ñoom wa xamal leen collaboration lañ bëgg def ak ñoom. parce que boo gisee ku sàcc téléphone ñu lay jàppee fii ci réseau bi. c'est parce que réseau bi day yëngu ci wàllu mobile ñi fi nekk yëpp ci téléphone la ñuy jaay ci la ñuy yëngu dafa mel ni rek tey ku sàcc nag daral ba lañ lay jàppee kenn du la jàppee ci réseau bi ku sàcc bëy ca daral ba lañ lay jàppee kenn du la jàppee ci réseau bi léegi nag technologie dafa dox ba nga xamante ni téléphone day nekk lu ndaw yomba sàcc yomba jël yomba yomba naax saayal nekk lu oyof loo xamante ni mën nga ko jël sans risque moo tax nag sàccum téléphone bi gën a bëri waaye ñun nag am nañ ci taxawaay bu mat sëkk am na ñoo xam ne dañ leen di sàcc ñëw fii laataa sax ñoom ñu yëg ni sàcc nañ leen ñun fekk na delloo nañ la sa téléphone ñëw nañ yee la ne la ana sa téléphone nga ne mu ngi chargé ñu ne la sàcc nañ ko bu yàgg ka sàcc dafa ñëw di ko décoder ñu laaj ko kan moo ko moom enquête ko ba mu xamal nañu la koo sàcc ñu indil la ko sa kër def nañ ko fi ay kilifa yu bare bëree bëri bëri te yamul ci téléphone rek parce que ñun dañoo taxaw ne lépp loo xam ne sëñ bi da koy bañ ci dëkk ñun dañ koy bañ ñamu jaral nag ñamu jaral ñu ciy def lu ñaaw ba mu jaral leen ñu ciy teg seen bakkan pour def ko ñun jaral nañu lu mel noonu ngir dëkk bi am kaarange am leeraay tegu ci dëgg loolu dañ ci kii bu baax jàpp nañ fi maintes fois ay alcool lu mel ni gens wala sàngara wala pon jàpp nañ ci ay quantité yu bëree bëri ba ci yàmba faux billets yu ci bari jàpp nañ ko maintes fois polis ak Safinatou amaan xam nañ ci lu bëree bëree bëri waaw mënuñoo toog nag di lim ndax tey registre bii ngay gis daanaka lu ñu sàcc rek lu ñu jàpp ci sàcc ak def ñaawteef yëpp dañ koy enregistré fii bind ko mun ngeen ko filmer xool ko kenn ku ci nekk ak la mu def ak fañ ko yóbbu ak nañ lijjantee kaaw loolu yëpp dañ koy bind. parce que ku ne xam ne ni réseau bi ñi fiy yëngoo bëri nañ te ay ndaw lañ ay ndaw yu am jom ndax tey jii réseau bi niñ ci en niñ ci enregistré rek mën na 925 personnes yoo xamante ni adhéré nañ ci biir association bi te ñi adhéré wul ñoo ko am na ñuy donc tamit ñu bàyyi xel ni mooy benn usine bi nekk tuubaa fii amul usine amul usine foo dem am na usine ba mu des fii Touba malheureusement mun euh, heureusement sax laay wax du ma ne malheureusement mais heureusement mu am benn genre yar bi ñuy yar ndaw Touba ndax day juddu dem jàngi daara bu fay jógee daanaka dina am fukki at ak juróom jëm fanweeri at. 25 ans ba 30 kooku jàng métier da koy wees comme jàng métier da koy wees nag bu ñëwee commerce la mën a def ndaw Touba li ci neex ak li tax ñu war leen a jàppale mooy jeunesse bu courageuse la ñu am ndax xaaruñu xaar ñu kenn ci lenn jeune bu ci ñëw moo xam sa yaayee jaay chaîne oram jox la nga départoo ko moo xam yaay manœuvre wala ngay pousse brouette ba xëy am li nga bëgg départoo ko mais ku ci nekk ak say maigre moyen nga taxawoo fii yor si sa njaboot di ci dimbali say waajur di ci jox addiya sa sëriñ di ci taxawut bërëb bi ñu sant fi daayira sant fi lépp di def lépp loo xamante ne dafa war a murit bi ci Touba ñu ngi ko fii tey di ngeen mbaar yi nii ni mu jaxasoowee nii ak fii nombre de personnes bu ci nekk bëgg nañ mu gën a organiser de telle sorte que mbaar yi ngeen di gis nii dañ koy fexe mu wàññeeku bañ am ay parasol commun maanaam yëpp nekk même couleur ba rëbëj rëbëj gi nii ni mu jaxasoo yi wàññeeku encore lu tax ñu bëgg ko def GIE bëgg nañ ci financement yi comme tous les jeunes du pays parce que ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañ bokk bëgg nañ am ci financement yi ba nga xamante ni ñi fi nekk di taaba taaba seen doole néew ñuy taxaw ci tëli bi di def li nga xamante ni mooy occupation anarchique mën na ñàkk ñooñu bu ñu amee moyens yu ñu amee place am place moo leen gënal ndax ñu bàyyi seen gannaaw lu bari lañ ndax tey 1000 personnes et quelques yi ma lay wax ñoo nekk fii ci réseau bi yeneen 10 000 personnes ñu ngi seen ginnaaw ndax kenn ku ci nekk dem nga ci famille te famille ba am na 10 personnes te daanaka yaa leen